mais mais Maria man pour pour gàttal dama dama dama jàpp que boo jëlee histoire politique gu Sénégal euh, du ma dem plus loin que 1960 ça était jalonné de conflits yi nga xam ne et pourtant les ressorts de la société sénégalaise fexe nañu ba delloo si waat les partis en belligérance teg leen ci benn place. maanaam lépp ci waxtaan la. lépp ci waxtaan. waaw lépp ci waxtaan mais problème bi mooy waxtaan fii dans ce cas d'espèce. c'est pas c'est possible il faut d'abord établir la confiance. <laughs> ñoom ñaar ñi ku ci nekk ci ñoom ñaar am na koy déglu am na ko ruus. mais même ñoom entre les alliés comme je dis souvent. entre les alliés ñoom ci seen biir sax ils ne se font pas confiance. waaw moo tax mën na la nag Macky ak moo tax mën la tey tey président Macky Sall kese. Ah. moo ko mën a régler. moom kese moo tax mën na la moom am na ki nga xam ne da mu koy déglu te ruus na ko. Ousmane Sonko mi am na ku muy déglu te ruus na ko. Mhm. c'est-à-dire il faut que ñu user de sa ça. doyen yaa ngi fàttaliku quand on appelait président ab Ablaye Wade le président de la République. Mm le Sénégal était ingouvernable. ingouvernable amul lu abdu Diouf essayé wul tëj na tëj tëj tëjaat ubbi tëj tëjaat mais finalement quand certains responsables du parti socialiste xamal ko ne que président li c'est pas ce qui nous arrange cest à on va directement vers le mur dañuy ñàkk kii il faut nga wax moom mais il a cherché et il a trouvé une personne xam nga Ibrahima Sagna kooku at yu mu dox yépp ci diggante Wade ak Diouf kenn mosu ko yëg kenn mosu ko xam kenn mosul xam mosul toog di ko waxtaanee mosul toog fësal ko fenn dana toog lijjante li muy lijjante wax ak Wade bu fa jógee dama wax ak juuf ku ci nekk la nga wax mu jox ko wax ko sa morom ba ñu trouver benn terrain d'entente waaw mais loolu nag dama ne ñàkkul ci dëkk bi. ñàkkul fi de. waaw moo tax dans ce cas là je suis sur et certain que sama yaakaar la su dee président le président Macky Sall veut vraiment trouver une solution il peut trouver il veut il peut vraiment trouver une solution. moom lañ joxoon euh, kii bi. affaire dialogue bi.